33 parti ci waxtaan wu am solo woo xam ne ñi ngi ci fas yéene dikk comme nañ ko baaxoo de defee ci ay poñ yu fasante yu am solo waaye laata ñuy ñëw ci thème bi nag mbokk yi maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di ko tàmbalee ci région bii nga xam ne fi laay àddoo muy région Lombardia ci dëkk bu ñuy wax Bagnola Mela tey bokki Sénégalais yu bari dëkk fii di daan seen doole di soutenir seen famille di nuyu it waa Veneto di nuyu waa Trentino Alte Dici waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy waa Emilia Romagna ak waa Piemonte ak waa Liguria waaye ak waa Marche waa Abruzzo waa Puglia ak waa Lazio ak waa Campania ak waa Sicilia ak waa Sardegna ak waa Toscana bu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci territoire Italie ñu ngi ñëpp ci ñaar fukki régions yi di nuy it waa France nord France sud ñu ngi nuyu tamit waa Espagne nord Espagne sud ñu ngi nuyu waa Portugal di nuyu waa Angleterre ak waa Pays-Bas muy Hollande di nuyu waa Germanie muy Allemagne waaye di nuyu waa Belgique di nuyu tamit waa Suède ak waa Norvège ak waa Autriche ñu ngi nuyu mboolem Sénégal yi nekk ci territoire Europe. naka noonu it la ñu nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ci États-Unis d'Amérique tàmbalee ko ci état bu New York di nuyu waa Brooklyn eh, góor ak jigéen ña fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Washington DC Washington State ñu ngi leen di nuyu ak waa Texas état état bu Texas ak waa Dallas Texas ak waa Arizona ak waa Cincinnati ak waa Los Angeles ak waa Californie. ñu ngi nuyu rek waa Amérique du Sud di nuyu waa Brésil ak waa Argentine ak waa Colombia ak waa Chili ñu ngi nuyu Sénégal yi nekk ci Amérique du Sud bépp di nuyu it ñi nga xam ne ñooy waa asiatique yi di nuyu Corée du Nord Corée du ak euh, Chine waaye ñu ngi nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci Moyen-Orient bi di nuyu waa Iran ak waa Irak ak euh, waa Palestine ak waa Israël ñu ngi nuyu mboolem foo xam ne si ab Sénégal ngi nuyu waa Canada ak waa Union soviétique ñoo ngi nuyu ñëpp waaye ñu ngi nuyu monde arabe Arabie Saoudite di nuyu waa Kuwait ak waa Bahreïn ak nuyu waa Liban waa Libye eh, waa Turquie waa Algérie ak waa Maroc ak waa Tunisie ak ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci Mauritanie. kon mbokk yi foofu la ñuy taxaw ci première partie bi ci nuyoo bi ñu nuyu si la sénégalais diaspora bu ndikkee ci terminus bi muy jeexitalu émission bi danañ nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique de la di. nuyu ñëpp rek foofu waaye man mu nekk te Sénégal di déglu suñu kàddu gi ñoo ngi lay siyaare bu baax kon bokk yi numéro 133 parti kon buñ taaxarloo tuuti rek ñu ñëw ci thème bi jéem ko faram-fàcce bokk yi kon niñ leen ko waxee woon ci numéro boobu tey dañ koy tàmbalee ci sénégalais yi nga xam ne maa ngi dund ak ñoom fii ci territoire itali te xëy na amaana sax lii may bëgg a wax ci ñoom xëy na ñii dund yeneen réew yi danañ ko gis ci seeni réew muy ñàkk secret gi nekk ci ñoom te teguñu ko ci yewute ba noppi muy jur ay jafe-jafe ci yàqalante ci kaw soxorante yooyu tey ci lañ bëgg a dikk muy sénégalais yi nga xam ne dañuy liggéey liggéeyu clandestin te dëppoowul ak li nga xam ne mooy ci réew mi tam ñuy jural ay jafe-jafe ci fànn yu nekk ndax gis nañ ci ñoo xam ne am nañ ci jafe-jafe renouveler seen i kayit am nañ ci jafe-jafe ak yoon am nañ ci jafe ci seen oto yi nga xam ne ten ni si moom la ñuy war te loolu lépp situation yu débordé moo koy waral waaye nag boo nekkee ci réew moo xam ne si ñoom seen àddina bépp dañ koo jàng ba xam niñ ba téye ko ci seen loxo ba jekk ko lool boo nekk ci seen biir nekk Euh, li nga xam ne mooy silmaxa da ngay moytandiku ndax am na loolu mën nañ koo gis bàyyi ko ci biir nga jàpp ne sag yewwute la wala sag njàmbaar la ba di ko manifester di ko waxtaane boo ëllëgee ñoom bu nu jógee ci loolu man nga mën ngaa jàppe sa bopp ne kon doo dara laboro clandestin bi ñuy def muy di liggéey te régulariser woo li ngay liggéeyee maanaam euh, reconnaître wuñ ko état bi reconnaître wuñ ndax amul papier jaaroo ko fa ko war a jaar situation rek moo la obligé war liggéey dem ba liggéey jafe la nga xëy dugg ci wàllu liggéey boo xam ne eh, régularisé wuñ ko loolu yaakaar naa ñuy dund ci Italie xam nañ ko boo demee ci côté transport dafa boo gisee ci Italie dafa am seen transport boo xam ne sii dañ koo dañ ko dañ ko moderniser modernisation boo xam ne façon transport bu nekk am na catégorie ku ko war a def boo xam ne si lañ ca war a def lépp dañ koy def bu dee lu mel ne wàllu taxi yi nga xam ne tey boo demee ci barab yi nga xam ne fa la ñuy faral di stationné bu mel ne station gaar yi wutal lañ leen fa parking ci wetu gaar bi boo xam ne si taxi yi dañuy ñëw rang kenn du jël dagg rang kenn du yab di ci foo wërta yabe ah wut nañ seen organisation boo xam ne tey taxi foo mën a nekk ci itali di woote yow taxi boo boo téléphoné ci numéro source boobu ñoom bu ñu leen waxee fañ nekk ñoom kenn koo jëkk jot bu nekkul ci zone boobu dafay daal di woo lay transféré gën a jege ci zone boobu xam nga noonu loolu duñ ko def tey noonu boo nekkoon ci rang kenn day jóge fële rek daal di bëgg a yooroo gis ngeen coxeur yi ni ñuy demee ak ñoom su ko defee kooku ñëw jël la ci condition yi lañ koy teg. nga xam ne bu dee lu mel ne aéroport it ñoom dañuy ñëw rang bu wal bi xasee wàccee ku nekk ci bopp bi rek ku ñëw yëpp moo xam kuy génn dëkk bi moo xam ku ne ci biir dëkk bi ñoom yooyu xooluñu ko dañ ko organisé ba kenn ku nekk li si wërsëg da nga ko lekk léegi nag boo ñëwee dugg ci seen métier moomu di rang ci buntu gaar yi di nëbb sa oto fee bu njëkk sax dawuñu ko nëbb am na ci gaar yi jarul tudd seen i tur waaye da ngay fekk lu ma juróom benni taxi juróom-benn waxambaane ku nekk yor ko xëy na daan nañ liggéey liggéeyatuñ waaye ñàkk gi ñàkk mën a maîtriser réew mi ak ñàkk gee jàng ak ñàkk gay yow moo leen di dugal ci conneries yooyu te loolu la muy jur ëllëg alal jëru ko léegi nga ñëw gaare sa oto fële taxaw ci buntu gaar bi bés bu set ñu gis la nga taxaw dem ba tubaab yi xàmmee la ngeen di dajaloo di waxtaan di làkk ay italien ku ñeen seen ñu gis kenn dem kar ko ñi surtout ñu lëngoo ànd ak saagam dugg tubaab yi defuñu ndax fenn fu nekk ay caméra lañ fa sab waxuma laa nag ñun ñàkk gi nga xam ne ñàkk nañ ko nëbbu te duñ ko teg ci secret bu yàggee ñooñu danañ ko fexe ba wax ko policier yi ñu yebal seen i inspecteur ñaata nit lañ ci jàpp ñu xëy xëy xëy xëy dikk sibiru ci façon bu nekk dikk wax ak yow ne la man na maa bëgg ku ma yóbbu barab sàngam nga ne ko fayal nangam mu nga koo fay fekk ay inspecteur lañu mat na ñaar ba ñett ñu daal di dugg départ daw tuuti ñu tàpp sa mbagg nga geesu ñu génne la carte police de la police daal lay wàccee oto bi yi dugal la ci gannaaw daal lay ceene kenn daal di ñëw dugg jël oto bi dawal ko jël sa matriculation identifier say kayit xam sa adresse xam kañ nga ko commencé def ak ñaata yoon nga ko def su ko defee loolu indil na fi nit problème nangu nañ ci oto nit à la fin dafa mujj jëndiwaat oto boole ko nangu permis lu mat trois mois yoo xam ne nekk nii xëyul gontul buy dugg buy dem ci tram yi lay war wala muy war ci kaar yi wala muy am ñu koy yóbbu loolu lan moo ko fi jar lu mal organisation nga xam ne léegi Sénégalais boo xamee ne que ni gis na ñoo ñëw rek bis boo ba manqué bi liggéey daal di jël sa sagaru oto daal di ñëw rangandoo ak ñoom te am na ci ñooñ lépp lu ñu dugg mu yàqu am njaay sax boo doon jaay fenn di làqutu yàlla dogal nga fay jaral am na kook bu la tegee bët rek daal di ñëw teg fi nga teg xam nga toppandoo gi ñuy toppandoo te duñ ko organiser moonu andil musiba yi ñuy dal fii ci biir réew mi bari na ko fi am catastrophe te loolu moo ko yóbbee ndax dañoo amul secret boole fu taxaw ñaaroo di ratatati di wax di lakk ay italien tànqal nit ñi boole kook di violer li nga xamante ne sii mooy seen secret bi nga xam ne moom lañ doon def ba finalement loola day mujj yàqu ci ñëpp nit day laal fi barab sax kenn daal di jékki-jékki gis ko ne kenn yaakaar naa ma ngay doxal daal di ñëw lal ñu daal di woo ñu daal di ñëw ngeen bokk ko ñàkk waaye kenn mënta muñal moromam dara ci jàpp ne ma nga cay am dara ndax dangay bëgg rek ñëw sumbaxloo bu yàggee ñu def ko marché bu dee taxi yëpp bu yàggee ñu daal koy def ab gaaras benn place bokk fu ñuy lekke bokk fu ñuy naane ñenn ñi yor seeni téléphone di woo seeni client di wax ay italien di ratatati loolu moom na ngeen xam ne tubaab yi bu ngeen ko férifee du jàll kon jafe-jafe bi mu leen di jural maanaam organiser seeni ngir teg ci yoon dafa gën ndax tubaab yi dañoo am écoute lépp lu nit toog ci këram di ko wax jàpp nañ xanaa kay ñu bëgg laa jàpp ak ñu bañ laa jàpp noonu yi lañ demee ba aéroport Malpensa be boo jógee Sénégal da ngay xam ne ñii li ñuy def ay ñu xamul dara koy def ab aéroport kay xanaa bu ngeen mujjatu la def taxi from ngeen war ko organiser tasaaroo waaye di dugg ba ci biir aéroport bi ah arrivage bu génn ngeen di tànn Sénégal yi eh foo jëm Brescia nga jëm Bergamo nga jëm Milan nga jëm Torino nga jëm nangam nangam nangam di ko wax di ko wax ay italien turu xaalis bi sax da koy wax 40 euros wala nga ne 50 euros di ko jaar ca kaw di ko loolu dafa nekk loo xame nekk ni amul secret te tout ab tubaab bi dañ nga ci jàpp te kun ci jàpp dinañ la teg peen boo xamee nekk nii bàyyi ci réew mi sa xaj na ci déedéet nitee comme yéen da ngeen na nangoo doon ay dof ñàkk nangoo yeewu bu ngeen di dugg ci mbirit ndeysaan organiser leen ko waaye ne ci biir aéroport bi dajaloo bu kii yuuxoo fee kii yuuxoo fee boole di wax wax téléphone taxi man yi taxaw di gis ñiy dawal bis taxaw di gis autorités yi civil yi nekk ci biir daw di gis ne loolu ab dafa koy def su ko defee ñu ne kenn ku nekk ñu jël la fépp nga a dem wax ak kee mu wax ak mu am toog mu am toog boo demee am nombre ngeen àndandoo ruggandoo ñu gis la nga dem ca parking ba génnee oto ñoom ñëpp nga ñëw sëf leen te bët bu set ñu gis la te tubaab yi dañuy dem ba xam ne identifier seen oto fi ngeen koy gaare fépp ay caméra surveillance fi nekk dee leen nite te bàyyi ndof gi ndax da lu ngeen dugg da ngeen ci dugal loo xam ne ni bokku ci te comme dañoo néew doole te noonu ku nu fiir bu ñu jàppee loolu da koy moytandiku aéroport bee ngeen di dajaloo di ratatat bi indee ka wàccee seen oto yi ñu jël seen matriculation fa ngeen di parqué ni ñu leen te fayu leen loolu bu yàggee tubaab yi ñëpp la ñuy soupçonné te buñ ñu leen ay dof da nga gis daan tubaab yi ay dof lañ xamuñu ci dara tubaab yi leen gën a nite bis da ngeen xam ne ay nit lañ kon première partie bi kon foofu laa ci taxaw kon nag ñu ñëw ci li nga xamante ne sii mooy li nga xam ne jaaroon na fi ay jamono waaye dama koy yeesalaat ngeen xam ne nun day amuñu benn benn crédibilité ca Sénégal amuñu fa benn valeur ndax joxuñu ñu suñ wàccuwaay dañ ko séq ak ñoo xam ne si dañuy say mbokk ba pare doon say noon mën naa doon say jabar mën na doon say rak mën a doon say vaccin muy say dëkkandoo mën a doon say am di jàmm nga xam ne bëgguñu ci ab muudu dara lu dul jàppee ko garab goo xam ne si garab gu ñuy watt la tiim ko di wat ba mu rak ñu damm car ya sànni la mu daanu jëpp wuñu am moodu lu dul ab torson boo xam si da koy jël ñandu sànni ca bari la jëppe wuñ ab moodu lu dul daal yooyu sol ba mu dagg nga yeewe ko fi ndefeer ba mu dagg nga jël ko sànni ca balit ma loolu nag képp kuñ ko fa teg war ngaa xam ni ngay organiser organiser sax moom c'est trop tard wax naa kii yu bees yi génération bees waaye jeunesse yu mag yi ñu mag ñi moom c'est trop tard ndax yor sa tabax juróomi néeg juróom benn néeg dem ca àll ba toxal say sa sa waa muy say say waajur toxal say soxna ñoom ñëpp nga indi leen yor seenub dund yor seenum paj yor seeni ma lépp yow yaa leen ko yoreel di leen ko defal yow kenn sël ci sa benn salaire ci sa benn jafe-jafe boole ko weer wu de wala si wala six mois yu ne bu dee ko jàmbaare day ñibbi bu du loolu at ku jot nga dem ñibbi ku am soxla wax la te piil bu lakk ñu di lax ñu la ñu ñu woor piil bu lakk ci kër xanaa lu ñu pauvre pauvre wala ñàkk liggéey piil bu lakkee di jar 1000 francs wala 2000 francs war ñoo mën a cotiser dem jënd ko robinet bu yàqu ñu yeew woo la bu fees ñu woo yee la lal bu damm ñu woo la wax la ko dégg nga robinet buy senn ñu woo wax la ko rideau bu dagg ñu woo wax la ko tabax bu xappatiku ñu woo wax la ko am na ci ñoo xam ne si sax yu ci bëree bari dañ koy golobal duñ la ko nangoo wax bu leen intéressé boo ñibbee Sénégal dangay ngay toog foo xool gis dara yàqu lii kañ la yàqu ñu ne am ah, lii de moom yàqu yàgg na lu tax waxu leen ma ko ñu ne ah man fa defoon ne wax naa la ko kon xam nga ne teguñu la fen te kenn koo xam ne jàpp ngay la ngay liggéey nga yëkkati ko dem faj sa soxla xalaatuñ ko yow kay lañuy noote te ñi ngay noote ñëpp kenn ku nekk waroon ngaa mën a xëy am foo dugg ña ca am fu ñuy dugg sax duñ la dimbale ci dara nga yor lépp bu weer bi de courant bi ne la kaay sànni la facture bi moo xam cinquante mille la moo xam quatre vingt mille la moo xam moo xam moo xam nga fay dégg nga bu dépasse bi jeexee borom bitig ba taxaw yónnee la ay message dépasse bi kat nangam nangam calcul naa ko moo xam deux cent mille moo xam trois cent mille la nga yëkkati ko fay ndox mi bu dikkee ca ñay fa ñay fayee ndox non non yooyu nga gàddu ko te bu ñu sañoon tey nga faatu dama leen waxoon ne leen ab moodu li ko jig jigul keneen waaye liñ ko ñemee wax ñemewuñ koo wax keneen ab moodu moo ñemee ñëw wàcc këram léegi fanaan si koñ ba yëg na ñëw na mu séddale sëri cam koñ ba am ko fa feebar moo xam borom jabar la moo xam borom jëkkër la moo xam ku jur doom la moo xam ab jarbaat la moo xam ku mën a doon nga dëkk ab commerçant buy liggéey te kenn ñi mu wut a jaar buntu këram ba fëgg ko muy xaaju guddi ay une heure wala lu ko jiit wala lu ko mujj amuñu fenn fu ñu xalaat dem fu dul dégg naa jëkkëri diw ja ñëw na wala baayu diw ba ñëw na wala nijaayu diw ja ñëw na wala doomi diw ja ñëw na ñëw fëgg la xamuñu noo tëdde nga dégg ko jóg ñu dikk neel wax la seen tawat sama nangam daa feebar sama doom sama jabar wala sama jëkkër nga daal di génne sa oto say bu tooy simis sax bu ko koy tëj da nga koy jaawale man ngaa jaawale say daal génne sab oto bàyyi sa waa kër ñuy tëdd nga ànd ak moom sëf malaat bi ànd ak ñoom yóbbu hôpital boo demee hôpital yaay dagg ticket bu buñ ne la fees na yaay jàllale boo demee bañ jëlal ko lal nga àndaat ak ki ki nga xam ne mooy borom malade bi ñibbisi ci kër gi fajar yaay delluwaat añ yaa ko yóbbuwaat yaay dagg ordonnance yooye yépp nga di ko def te ki nga koy defal xamuñu ko jàppe la ab daf te ma nga romb commerçant bu la ëpp doole fuuf ñemewuñ ko wax wala mu mën a ñemee dem jël taxi waaye gis na ne nooy ko am ci mooru yeeg seenu ñàkk fay da tax na lu ñu yan ñëw la ko lu ñu yëkkati ñëw yan la ko te lu ñu buub ñëw xëpp la ko tey boo demee ba situation yooyu dañ ñi nga gënoon sonn ñoo lay def ay noonu ñi ci jiitu mooy say bokk ñi nga yor seenum dund yor seenum faj yor seeni ravitaillement soxla suñ am nga faj yaa yi yaay dagg ordonnance yi kuy dukki sax yow paas bi yaa koy joxe ku piiram lakk yaa koy fay ñooñee tey ñooy ñëw nag wëlbatiku ci sa kaw soppe ko ay ngànnaay jël ko di la ko dóor lii kuy ab moodu moodu ak foo mën a moodu moodu li ma lay wax xam nga ne dëgg la la fayda lool jàppe mbaam mu màggat ci kër gi ba bañ duñ la jox sax xont duñ la jox ndox moo naan billaahi wallahi taala te moodu moodu dama leen wax ne xol bi nekk ci moom nekkul ci kenn Modou Modou mooy dem Sénégal yéeg ci saret moo xam ñaar fa ko lay fayu mu totaale saret bi yëpp fay ko te balaa àgg fa mu jëm wàcc Modou Modou day dugg ci oto paasal ñi ci nekk ñëpp Modou Modou la nit di ñëw ci moom fen ne am naa ordonnance sàngam te du dëgg mu yëkkati ko jox ko Modou Modou moo naan cëpp biir Sénégal ñu tàmbalee ca dàll ya di jaar ca tubay ja romb ceinture ga yem ca simis ba ko jaar la ca montar ba ba àgg ci weer ya muy tàkk ñu mel na garab goo xam ne si dafa dañuy agsi rek di wat kii ne ko sa weer yi laa bëgg kii ne ko sa montre bi laa bëgg kii ne ko simis bi laa bëgg kii ne ko pantalon bi laa bëgg kii na ceinture gi kii ne dàll yi ñenn ñi ñëw na xaalis lañu bëgg ñenn ñi di la ñaan ay téléphone moodu moodu ngay gis fii buy ñibbi promotion bu mu dégg dem jënd jël lu mat 500 euros dem jënd ko ay téléphones yi 60 euros 100 yu ñuy def promotion nga àgg yëpp maye ko ñenn ñi ñàkkal la fayda négligé ko. defe na buñ ko buñ ko ñàkkee mën nañ ko amaat te ko ci soxla rek yëkkati téléphone woo la waaye ko ku soxlaam fajo noppi nga koo jot loolu mooy seen jikko muy dañoo goreete nekk ay mbaam nekk ay ay nit ñu bon nit ñoo xam ne si lu ñu xas romb fàtte nañu ko ñu mel nii nag booy dund ci ñoom te organisé wa sa bopp foo jëm Modou Modou kenn bëgg ko ndayam jikko ko jur képp moo ko bëgg su ko defee boo toll ci situation yooyu nag yàgg fa dong boo ko defee six mois baat yi ñaaw ngay commencé dégg ña la doon ñaan tubay jaak di la ñaan dàll diw fóotlu na jëratul dem këram tàmbali buñ toogee ci gaaram place moodu moodu yi nangam moodu moodu yi nangam commencé di wax wax ju bon waaye wax ju baax ñu wax tan bu gore woon bu ñu gubali mbaam moo ci war a jiitu duñ la ko def su ko defee boo nee ci kër gi nag waa kër gi njëkk wax ah diw yow dangaa ngaa di loogu nag xanaa réew ma daa yàqu wala say këyit daa yàq lu bon rek lañ lay adressé de duñ xool ci yow leneen su ko defee ñiy naxe jomet jóg taxaw loo bëgg a jënd buñ koy jaay ñaar téeméer ñu jaay la ko junni te suñu xasee récupéré junni bi taxaw di la daggali saaga xoolal du dof xoolal njéréer yi dégg nga xoolal dof yi njéréer ak i dof ak ñiy wàllante feebar moom lañ jël moodu yi tudde leen ko Sénégal képp mu daj kenn ko ci naw la moodu moodu amul ci àddina ku yaay ji la jur bëggul jabar yi ci baree bari bu ñuy sëy si intérêt leen fa indi te loolu la preuve mooy coronavirus bii indi na ciy preuve ñii fa ñibbi woon dong ñu tëj leen fa am na ci ñooñu amatuñ paas bu leen delloosi seeni jabar ca la doxee tas ca lañ doxee tàqali ko seeni doom ca lañ commencé amee noonu goone goo xam ne mi ngi ci kër gi ñu jàngal ko ay wax ci yow boo ko yónnee mu bañ boo ko dóoree wala nga gëdd ko ñu ne la bàyyil jàmbur yotewu moom dara li la naqari tegu la ko wala moom ci boppam wax la la dangaa mën a tëdd a dellu sa jabar ji tax sa oto bi nga amoon te amutoo ko tax këyit yi nga amatul moo tax lii nag gii moodu moodu fan la jëm ci àddina gii moodu moodu fan la jëm ci àddina te lépp dund naa ko moodu moodu it li ko def mooy ñoom ñoo yóbbu seen bopp foo xam ne si dem nañ ba àgg te mënatuñoo wàcc ndax ba réew mi ba ñu naan réew mi mi ngi tane si wuñ dara takk say millions yóbbu àgg bi saaxar saaxar yi tëdd fa quatre-vingt-dix jours jënd sa oto boo xam ne si li nga ci lim la côté bari na te mënu laa indi lu xaalis but set nga di ci dox ay soxla lu toll ci quatre-vingt-dix jours wala cent vingt jours muy quatre mois nga dem garé bu yàqoo yaay yaay réparé yaay tollier pneu yu toj yaay yaay def di daw ci service yi nit ñi laajoo ci benn dërëm reeka rek diw am na oto daa jënd oto xam nga xeetu toppandoo boobu it waxoon naa ko fi bu njëkk lu nu rey ba ñii teg ñu considéré ñu fi rek ñoo ko teg suñu bopp ndax boo dikkee indi sa alal di wane ne nii laa mel gars yi ne la acca bisimilah dañ la ko lekkale buñ la koy lekkale dañ lay jay soo jeexalee ñu commencé nag wa wa di sànni ay xel toppandoo bi mooy kenn ku ne da ngaa war def la nga mën def la nga gëm am ci objectif waaye bu kenn defee dara ñëpp def bu kenn ubbi bitig ñëpp ubbi bitig boo dend ak kenn tey jii yàlla may ko wërsëg waxan si mayu la ko nga def sa terrasse nekk dëkk ca mu daal di ñëw tabaxub étage nga daal ne sa soxna wala say ñenn ci say jege ñaare wala leen xanaa kii bokku leen fu ngeen ne kii na nga ñëw jël sa dund gépp yemale ko ci ci ci réew mi jaay sa bakkan dajale ca la nga am ñëw ne da ngay bala nga ko étage doo nga ay at lay doon nga pare daal di tolloog moom mu daal di jënd oto nga ne damay jënd oto mu péntër nga péntër mu karaw nga karaw takk jabar nga takk jabar dañuy toppandoo ba ci nji demoom oto mii ñu doon dawal ci jaar ci suuf sax lañ ko daan toppandoo ngir bëgg ne man kat sama jabar laa bëgg a sagal wala sama jabar moo ne ma nangam te jabar jooju di la wax di la di la di la dàqeloo ngay daw ci gott boo xam ne si doon ngaa fakkatal wala nga dugg ci kàmm bis boo demee ba ko mu lay njëkk abandonné sànni boo masaan dem ab saret don boo ci yégee mu naan tey da nga maa rusloo sama nawle yi fi nekk yor seeni oto nga dem di dugg ci saret te tey am na ci moo moodu yoo xam ne si bëgg nañ saret buñ dawal ci biir Sénégal te mënatuñ ko am loolu moo ñu jural musiba yii fii ñu waa Sénégal teg su ko defee nag dañ lay gaaruwaale gaaram place boo toog boo nuyoo dana boo ànd keneen ku bees kuy door a ñëw yow la ñuy mujj fay waaw ah xanaa kii da daa mën dellu moom da ñàkk na fay trop takk ñetti jabar nekk fi mën a tuta dellu di naa a ya daa yàqu yu mel noonu la ñuy wax waxuma laa nag bu fekkee natt original nga yor nga feebar dem ak sa feebar te Modou Modou lii ci gënoon mooy ku fii ñu toll senegal yi bu ñu demoon tey ba yàlla na toll leen man ñàkk ba na dellu li gënoon mooy toog leen siyaare li wolof Njaay daan mbaam wala tan bu ko woon bu ñuy gubalee mbaam moo fa waroon a waaye tan ji koy tan lañ yor sag daanu rek la ñuy séddu ba dem séddoo li la dese ci jëmm lekk la ba nga set wecc su ko defee nag ñoo gemb keneen rakk ji nga yóbbu sax fayal ko ay million tey bu demee tey ba nga tollu situation yooyu moom la ñuy yëkkati te ko ci sa kaw mooy doon sa kilifa mooy doon sa sa sa sa sa lépp lu ñuy waxit baatu kër gi moom lañ koy jox yow koy dutoo fi tekki dara yaa gattax bu rag a yam gattax bu rag nga xam ne mënoo sakket mënu mënuñu laa góob yow lañ la yemale yow la ñuy dëggaate ku jóg yab la ku jóg def la nawle su ko defee nag yow bu boobaa koo romb ko ana oto ba ñu ne jaay na ko ana jabar ja ñu ne tas na ana mbokk ya ñu ne tasaaroo nañ jubóowutu ca kenn sa yu bon rek la ñuy bital ñi di ko xool am ñu toll situation yooyu ba ñu demee ba yàlla joxaat ne yéen situation dañoo wàññee ko waat nekk tan ñëw waraat ko man kay saytaane la woon rek moom kay moom nangam xamoon naa ne kay nangam ak nangam ak nangam kon bokk yi thème boobu xam naa buñ ko souligné dana sori kon ñoo ngi nuyu Sénégal gi nga xam ne fa lañu dëkk di nuyu pays voisin Gambie di nuyu Mauritanie di nuyu Guinée Conakry ak Guinée Bissau ak Guinée équatoriale ak Niger ak Nigeria ak Gabon ak Côte d'Ivoire ak bene ak Cameroun ak Mali yàlla na leen yàlla jëlee ci jafe-jafe yii te defal leen la gën ca ñoom te benn noon bañ a ñëw jóg di leen nat ak di aar yàlla yëpp ñi ngi ñaan mu aar Sénégal yi nekk ci biir foofu kon mbokk yi tey euh, waxtaanu immigré tey foofu lañ ko jógee la jëmee incha allah. ñu ngi àddoo fii ci Lombardia ci dëkk bu ñuy wax Bagnola Mela incha allah ñu ngi siyaare ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen